Eh, Fatma Mbaye. Eh, eh, depuis combien de temps la commencé tàkk. juróom benn weer ci weer bi. juróom bi. weeru koor la tàkkul. ñun nag dem nañu fu ne. dem nañu Touba ñaan lu nañu fu ne sëriñ bu ñëw ni mën naa kaa dindi ñu weexal la dara kenn daal la fi ñëw defal yàlla ni moom soxlawul dërëm kenn Basirou Ndiaye Basirou Ndiaye daal moo fi ñëw def yàlla tax. ba mu toogoon lakkul weeru koor gi koor gi yaa ngi nii ñu dugg ko mu commencé waat di lakk fi mu nekk ni mbaar mi fi la nit ñi di tëdd nii boo fi ñëwoon guddi. guddi gi fi mbaar mi ngeen tëdd. kon ñëpp da a génn néeg yi actuellement. ah waaw néeg bi boo ci duggee mu tàkk nga dugal ci matelas bii mu tàkk warul a tëdd ci jaboot ay mool lañu suñuy xale mënootunoo dem géej liggéeyaluñu néeg bee ñu tëjoon ceebu kër gi dund ba. juróom-ñetti saakuy ceeb lakk na fa kër gu mag la dañuy boole dund bi teg ko sareet yi lu ñu tuuri bala ñoo del si nit ñu fork li ñu tuuri fii ëpp na fukki sareet ci ay matériel ay matériel matelas ay fauteuil lal ak loolu mais lan lañu wax moom moo ko taal ah bu ñu waxee ñu ne rab la waaye ñun xamuñu kan moo ko mën a dindi dañuy ñaan nag ci kàttanu yàlla ku ko mën a dindi nga ñëw dindil nu ko ñun bañu nu laa fay te it état dugal ci loxaam ndax sonn nanu jaboot ju mënatul a liggéey la mu yoroon lépp lakk muy fanaan biti amatoo kër goo dugg amatoo benn néeg boo dugget day métti nag ci liggéeykat suñu waa kër yaa ngi nii toog mool yaa ngi bu néeg tàkkee fi mu nekk. ñoo dem géej. yàgg na bu néeg tàkkee moo leen fi bàyyi ñu daal di génne matelas bi sànni xam nga lii ci jaboot kër gu mag. fukki néeg ak juróom-ñeent moo fi lakk boo weddee yoral sa bik ñu ñëw nu nu dugg nga xool néeg bu lakk nga bi dugg naa bi ci biir néeg gis naa daanaka néeg yu bari benn tabax desu fa ñu fi doon sayit dañoo mujj ñibbi. Ah, dañoo gàddaay dañoo ñibbi nan dugg ba ca ñoo fay dem amatuñu fu nu tëdd te seen jëkkër dafa tukki laajal ñi ñi ñëppi mool lañ liggéeyatuñu lu ñu yoroon nag jaay nañ ko weexale xar yu jigéen képp fi mu nekk ni moo fi des xaram tabaski sax borom kër gi amagu ko. sëriñ leen lan lañ leen wax. ku ñëw da nga da nga naan bu ñu may weexalee lii dal di def say def ni suul leen rey leen béy ñu rey sàkk sarax ba bëkki démb saraxa nu xar toggi ceeb dara gis nga kii dafa ñibbi seen kër néegam dara desu fi mi ngi nii sax. moom fi la doon sëy dafa ñibbi nii. néegam da doon nan dem dara desu fa. wallaay al asim kaay. Maymuna Maymuna Njaay la tudd. Maymuna Njaay kaay. yow euh, fi ngay sëy ci kër gi. waaw fi laay kër gi sa néeg bi muy tàkk nu mu tukkee. man ni sama wujj bee sama goro bee moom la néegam doon tàkk léegi bi muy tàkk nag ñu mu génne sama mat laa wéer ki si biir pour bañ mu tàkk léegi mu demee ba reer ba pare si laa ko fa taal si néeg bi léegi teg benn dorop bay bëgg a laal daal ni xaaral ma xaar tuuti daal di génn dugg si kër gi ñu dendeel bi ma fii. lañ ni kër gaa ngi tàkk ma ñëwee ba egg si fii seen saxaas di génn si parang bi laa ñu sama néeg mooy takk léegi bi ñu nag am ñu feen funu jaar néeg bi yëpp lépp tàkk. jeex tàkk sama yëri génn ma dara. kon yow da ngaa génn dem see seen kër. déedéet kër gi ñu dendee rek laa demoon daam ko ma doon seet taxawu ma fa sax damaa dugg rek wax moom. fi mu ne ñibbi suñu ah, kër. ñibbi seen kër. waaw damaa mbir mi mi ñu def ci saafara. waaw kon lu ngay sàkku maanaam sëriñ si ñi nga xam ne am nañu xam-xam am nañu baatin ngir ñu mën def ci ñaan ñu ñëw def ci ñaan rab bi tuxu xaw ma rab la xaw ma junne la mu tuxu bàyyi kër gi gi muy dëkkee taal ndax ñun mënuñoo dëkk fenn bu fekkonte ni bii kër gi benn nit moo ko moom dina mën a tux mais kër gi lu mat juróom benn boroom kër ñoo ko bokk. Euh, kon kër famille la quoi. kër famille la. taal na fi lu mat xam nga xam nga dëkkuwaayu lébu da ngay gis juróom benn famille nekk ci benn kër loolu moo am fi ci Kayaar moo fi am léegi bu doon benn famille la da ngay dem sa kër mbokk mbaa nga dem sa kër xarit bu mu la abal nga dem bu ngoon jotoon ba nga ñëw ci mbaar mi ba film ak sara ngooñ dal sa dënn gis nga kii bëkki démb rakkam dafa tëdd ci matelas mu taal ka nit ñee ko jëkkante am naa tam ku jigéen ku mu taal yéere ci kawam dafa lakk ci pooj bi wal fi ñëw na fi keroog jël ka waaw léegi yéen waa Walf keroog bi ngeen fi ñëwee dafa tombeek muy taalaat ñu ne may leen nu bala ngeen kaa fay ñu jël ko te booba léegi ñoo ngi xool tegu leen ko tele dangeen ngeen nu kaa war a tegal nag jàllaleel nu ka ku nu mën a dimbali ñu dimbali nu fayal nu ka état ñëw fi dugal ci loxaam mbaamu yónnee nu nu fàtte waaw soxla nañ ci daal ndimbal borom xam-xam. bi nu muy dikkee ci kaw lay jóge ci suuf. armoire bee dem gis naa bi dafa mel tàkk-tàkk bi ci kaw la jógee ci kaw la ko jëlee moom képp nag la taale ci kaw waaye leneen li ci des yëpp lal lay lakk matlaa bi lakkaale lépp loo gaaw gaaw moom mu yàq kate fi mu nekk nii li ñu teg nii bu doon duggaat mu di ko taal. mat daal moom moom mat laa lay bañ a gis ak matériel. moom kay moom doo dugalaat toog juróomi minute. moo tax ngeen euh, becc mat laay ni ci biti. yére yaa nga ne bu la neexee muri lépp yàqu na. bi ngeen di fanaan ci guddi même buy taw. buy taw dañuy daw dankaloo ci biir pereng yi xam nga loolu daw na yaram wóolootoo dugg ci néeg bi di nelaw mu di ko taal bëccëg la daan taal léegi nag dafa boole guddi ak bëccëg duñu nelaw tey ji laa génn dem fii te sama xel sax dalul bu nu fan yu nu noppalu. mu ñëwaat taal. moom ba ngeen noppaloo par mu taalaat. gis nga kii nii fi lay léegi nii ah. taal na ñaari man laa fi newoon si ñaar. waaw may ñëw fi. waaw waaw ñaari man laay tànn kan yéen taal nag. gis nga xale yu bi ñu soloo bay bëgg a dem si la ka taal. bi ñu soloo bay bëgg a dem ci xew bi. ñu yebbi toog xale jigéen ñi ñoo ñëw léegi nag taal na. chaque jour moom day taal moom sa jour wax dëgg yàlla am dimbal la ñuy ñaan pour borom xam-xam yi ñu dimbali ndax xam nga ñu sonn nañ xam man mi maa ngi ñibbi kër gi ñu fi nekkoon ëpp na ñi mais ñu bari ñibbi na ndax seeni néeg dafa yàqu ñu bari ñibbi na man mii ñibbi naa ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ñu ngi seeni kër. yow sama néeg daa lakk. mat la yàgg yëpp a ngi ci tuuri naa yëpp. yàlla moom xam na yónnante ba xam na ko manuma dara. bu may fii may taxaw sax damay taxaw di daanu bu may jóg di daanu. manuma dara sama néeg tàkk na. maanaam booy tàkk nu muy dikkee tàkk tàkk tàkk bi. ah man de génn rek ñu fekk ñuy génn bagage yi man manuma manuma ca woon dara day jékki-jékki rek ñu ne tàkk na mu saxaar ñu daw ah yàlla nag ndimbal laay ñaan ku ci am loo dimbalee dimbali nu sonn nanu jàq nanu tiit nanu ci kayaar gii ci kayaar njegeen gii tiit nañu